nga wax lo xamne tay meuna tey mën taal réew. parce que bo ne soble 250 lay jar 300 xam lu ta meuna na taal réew. man tay suma newe sama borom bouti mune ma def makoy jaaye dama koy pogné nako ne ko doo ma jaayee loolu dama koy jël pas force. man de boko defé man duma la pogné mais do jaay ken mais li di ngeen di def nii dafa grave. non non man man do la bu nek passé meuna mën a góole na teg def dara ci rew mi. ñeeni def yeen def dimbali leen ñëw. xam nga aw si waaye bàyyi leen ñu waay yéen tamit nag fekk nangam ak nangam moy moy jar nga bëgg ma koo jaay damay taxaw ne la do jaay kenen loolu man mom lay def sa dictature bi doxul de non non non duma non non man dicté wu ma la non nak may dictaté de da ngay laaj da ngay da ngay laaj Pape Amadou la ilaha pour pour ma wax ma yegal foofu non tay fu nga yag dama la dictaté dicté wu ma la bo laajee Pape Amadou bim mu ma nangam lañ ko wax mané ko awma pour wax ak kenn dafa am lu ngeen ma wax bi ngeen may indi ma am lu ma len wax ngeen yok heure non pour mu leer rek ngeen yok moy Pape ngeen yokk non pour mu teel pour nit ñëpp xam parce que internet yi ñun ñëpp ça nous concerne ma ne ko du pour man dafa am fu ngeen jëlee temps bi yóbbu ko arrangé wu ma damay dem xëy liggéey nangu naa ko mais il est faux ñun ñëpp ñu ah non déglu ma parce que yow yaa yor sa plateau defaroo ko ba mu yegg fii comme xas na yegg non non da nga yegg da nga may déglu yaa may déglu waaye yow yaa may déglu xam nga instant bi mën nga nekk di wax ma ne gàmm mu coupé sa micro wax yam amul benn non amul benn loolu bu boolaa def ko da nga may déglu du fu ma jëm xam na fu ma moom Saa Wolof moom. xam na fi ma jëm Saa Wolof mais jëm tegoo ko fenn. Saa Wolof bien sûr Saa Wolof tegoo ko fenn yow doo nitu sutura eh, ah. non non waaw non non. ah doo nitu sutura yow doo ko baax man ma lay wax di continuer pour mu gën a. Saa Wolof ah, non non ma ne la bu loo wax ak xaw ma kuy kooku kan la Saa Wolof ba xaaral ba kuy wax. kan la kuy Amadou mooy ba waaj. yow la nga wax ak Amadou lu mu ci. plan la wax dama lay dicté. Saa Wolof ma ne la dicté wu ma non non bu ma xaaral may ma yow nga dicté ma ma wax yow da ma dicté lu mu jotee la nga wax. non mooy koy concerné. waaye mooy après nga xam ne man du ma dicté nit. après nga wax xoog du ma dicté nit. du ma dictateur. xam nga laay dicté mooy koo xam ne par exemple. non daal c'est vraiment désolant yow man ak yow ñoo yem fii ci plateau bi. au moins kii yow bu ma naroon a wax ak yow sax kii laay waxal wala mu wax ak keneen ak keneen bu may wax ak yow dama lay wax ne la nañu def pour émission bi gën a jaar yoon ñu continuer euh, ci nii mais mënul nekk kii di ma laaj may wax ci lii après nga pare di ñu daggaat bàyyiwaat loolu da ngay doo concentré wu. kan du concentré wu. doo concentré wu du ma wu. Mais ça, franchement, c'est vraiment désolant. Non, non, c'est désolant. Mais moi, c'est un problème. Non, c'est un problème. Ah, moi, c'est un problème. Ah, moi, problème. Dama ne da fay wax loo xam dañ koy D'accord. Dañuy woote laajte ko. D'accord. Ça, saa yoo tu n'es pas concentré y a sa téléphone ba yow kii li muy ça sax Concentré, ko xam. Quand même ça, je suis vraiment désolé mais franchement wax bi yeggul fii yëpp quoi. Ku concentré wul dana mel ni man. quand même dañoo da nga ne lii jarul lii saa bu ko arrangé wu rek këpp na ci suuf këpp na ci kaar. Munoo débat nag. S'il te plaît, ça quand même.

su moom peut-être téléphone la man maa ngi bind message ñi ci ñu ngi may wax. maa ngi laaj waaw kon léegi loolu c'est permis. non non non damay laaj c'est ma loolu d'accord nga ci a xam ma d'accord nga ci d'accord nga ci ak ak di wuyu euh, téléphone en pleine euh, émission d'accord nga ci li muy def nii euh, ñu wax parce que sànq am solo li nga xam ne mooy nouveau régime bi ñu ñëw fii. Euh, keroog fii dama toog ma la ma la. Mhm. nañuy bañ di réeroo seen biir. Mhm. parce que euh, Ousmane dafa génn ne fii ak quelque weer wala année. Mhm. lii day metti lii day def nii lii day def nii Serigne Gueye génn Serigne Gueye Diop defe naa la génn wax le contraire ma la peut-être dañoo déggoowut wala Serigne le Serigne mhm. dafa euh, premier ministre am parce que mhm. bu dégoûtez li premier ministre am wax mom du génn di wax euh, voilà du communiquer non mu communiquer bon li li li je pense que ñom bi jël réew encore une fois dañ ne tout parfait mhm. xam nga des fois damay ku mel non ñom bi ñëwee liñ fi fekk dafa ak dafa li non non ñom waxu ñoo ne bu ñëw bu liñ fi fekk ñom ñoom lijjantiwuñu lool ñom bu ñëw dañuy raxas lu bon li fi nekk ñom ils ont les moyens et les possibilités de faire avancer ce Sénégal là té ñu bëri dañoo déggul fi ni ñom fiñ doon waxé ñom ñom xam nañ né état soit c'est une continuité wala boo ñëw nga raxas ñom dañ ne woon ils ont les moyens